jël nag match bi nga xamanteni modi amical bi na dox euh, sen dig ak Niger euh, tay ci ngone lay doon euh, ci fofé nga xamanteni nak kon lañ koy amalé ci walu xibaari da ñëw ci solos match bi lu soxal congrès wu parti communiste bu chinois ñoom nag Hu Jintao jiite nañ ko ba ñi ngay wajal nak tab kii di Boy lay ci yeneen walu nak wa Union européenne ñom soxé lolu ci wàllu ndax té 9 milliards mo leen manké ci budget pour 2013 bi mbokk yi ñu leen di dal jàmm ci jotaay xibaari ci sen télévision 2S TV nañu ko junjee la ñu dooree ak lu soxal nag larme bi ci bis bi lañ doon amal ca Kandial Diop kon nag dalal kii nga xamante ni moo di chef d'état-major général des armées bu bees bi di SEMGA Mamadou Mamadou Mamadou sow ci li nga xamante ni nag moo di l'armée bi ndaxte nag moom mu jël ay fonction te wax nag lépp li nga xamante ni moo soxol euh, taxawaay bi nga xamante ni armée bu sénégalaise na mën na ko taxawal jàpp nañ ne nag matériel bu bees dinañ ko dalloo ci l'armée bi leneen nag moo di tamit euh, contingent daañu ko yebal fële nga xamante ni moo di ca nord Mali di taxawaayu Sénégal euh, ci l'armée bi ak ñëw wu chef d'état-major général des armées di Mamadou Sow ñàkkul ci suñu yeneen daje xibaar daan ci ñëw ci li nga xamante ni moom moo wàllu wàllub xibaar bis bi nga xamante ni moom la ñu la diabète dañ koy màggal nag ci Sénégal diabète jàpp nañ ne nag jàngoro joo xamante ni la mi ngi ami jéego tamit ci biir askan wi lépp li nga xamante ni moo si aaju kon nag ci bis bi ñi ngi koy amal di ko ci tamit xeex ngir nag wàññite bi ci askan wi ci loolee nga xamante ni moo soxal jàngoroy jabet nañ leen ko doon junjee ci bopp xibaar yi ci géewu politique bi la ñu tàbbi ndaxte nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak njiitu réew mi Macky Sall ñoom nee nañu nag waa Benno Bokk Yaakaar ngi xaarandi bu baax po njiitu réew mi fi woon maître Abdoulaye Wade ndaxte nag jàpp nañ ni daal mouvance présidentielle bi fu mu toll nii nag ñu ngi encouragé njiitu réew mi Macky Sall ngir mu wéyal audit yi te lépp li nga xamante ni daal moo di kilifa yi coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ci li nga xamante ni moo di ñëwup Karim Wade nee nañu nag li war la ngir nag lépp lu jëm ci audit yi mun a am leer ñu teewlu kenn ca ñoom di Abdoulaye Bathily ci micro Signé Natango Abdoulaye Wade euh, li mu wax du taxaw euh, peuple sénégalais askanu senegal li mu laaj mooy ñi nga xamante ni ñuy pasara pasara ñu alalu réew mi nañu delloo suñu alal ñu mën ko jël liggéeyal xale yi ndaw yi euh, béykat yi nappkat yi sàmmkat yi. xaalis boobu ay milliards ay ay milliards suñu ko dugalee ci comme comme Sénégal euh, ala kulli aline bunt dina feeñ te loolu engagement le Macky Sall jël engagement boobu lay appliqué léegi. non non non du am fitna ñoom amuñu doole doole bi Benno Bokk Yaakaar ak peuple sénégalais moo ko yor loolu nañu ko xam nañu ko xam lolu def nañu ko conférence de presse bi lolu la woné ñi nga bi dañu day nelaw wala parce que ñi nek bureau yi wala eh, costume cravate nous eh, avons ci gis nga lutax comme le 23 juin comme le 23 juin mais Sénégal les bëgg mu Sénégal nous tabax ko ni mu ci wàllub xibaar kon nag ñu ngay jotoon ñi daal ne njiitu réew mi. woon maître Abdoulaye Wade xëy na nag yoonam bu mu namoon ñëw ci ndakaaru ajuma euh, bi ñu jublu dalee ko bu 10 heures jotee boo moytul nag da koy teg ci suuf ñu ngi naan daal ci ay xibaar ay kilifa euh, ci diwaanu Afrique ñoom ñoo sàkku ñaan ko njëkk nag kon mu tegoon lépp li nga xamante ni moo di jàmmaarloo bi ci suuf euh, ci wàllub xibaar tamit convocation wu Karim Wade moom nag ba léegi ñun ñi nag gisaguñu kii nga xamante ni moom moo fi nekkoon ministre bi yor wàllub infrastructure ak transport jàpp nañ ni daal ay jege Karim wad nag nee nañu dana teew niki euh, tey kon nak ci convocation wam ndaxte nag jàpp nañ ni daal ki nekkoon euh, doom ci président Abdoulaye Wade di jiitu réew ci Sénégal euh, moom daal ñu ngi doon wax ni convocation bi lépp li nga xamante ni daal moo di wàllu politique moo ko lal waaye nak loolu Karim wad tamit wax ko ci magazine bi nga xamante ni Jeune Afrique te nag ñi ngay wax daal wàllu cuune ci nguur gu bees gi nga xamante ni moom nekk ci Sénégal ñàkkul ci suñu yeneen jotaay xibaar daan ci ñëw ak yéen direction bu yor wàllub réglementation supervision système financier décentralisé ñom ñi ngi xibaar daal ne nak dañu euh, jëlé lu tollok téeméer fuk ak juroom ñett agrément di 118 agrément ci secteur microfinance euh, ci lu soxal directrice de la réglementation des institutions microfinance néna na daal euh, kër yoy respecté wuñu seen engagement ba tax na nag ni yoon nak dafa wara a def liggéeyam ci lépp lu soxol procédure liquidation wu kër yooyu ngir nag ñu dem ci ba ci càppaandaw ga ñu teew lu leeral yi ak suñu naataango Xadijatu Si mi àndoon ak Pape Samb ñu yor lépp lu laal ci wàllum koppar gi ñu koy naan finance amal nag ab séminaire jàkkaarloo ci ak ñi yëngu ci wàllum justice loolu yëpp nag ngir xamale ak ñi nekk ci microfinance bi li li yoon wax ci secteur boobee ak naka lañuy ñuy saafaraale yenn jafe-jafe yi. système financier décentralisé moom la ñuy faral di wax mutuel. ndax ay kuréel la yoo xam ni àgguñu ci banque du ñuy banque mais dañ leen a jox agrément ministre des finances moo leen di agréé pour ñuy man di leble di man également di jël xaalisu ñi nga xam ne bëgg nañ leen dénk seen xaalis wóolu nañ leen wóolute nag moom mooy li nga xam ne moo war a euh, nekk ci bopp bi moo tax benn ndaje bi dañ ñi képp ku ñu jox agrément nga da nga war di saytu sa bopp ndax saytu sa bopp ku nekk yaa xam sa bopp da nga war a def contrôle interne mooy benn ndaje bi donc ñu nekk ak ñoom di leen wax di leen soññ ci loolu contrôle interne boobu ñu war a def ndax ñun suñ ñëwee di leen xool ci loolu ñu doon saytu ñun ci la ñuy topp pour mën a xam ndax saytu bi bi ñuy def ci seen biir ndax aw na yoon wala awul yoon donc muy ay échange ak ñi nga xam ne ñooy kuréel yooyu. beneen ndaje bi dañu nekk suñu nattangoo yi nga xam ne ñoo nekk ci juridiction yi muy juge yi ak greffier yi. parce que loi bi tamit dafa prévoir fonctionnement wu SFD yi ak nan lañ leen di dugale ci système bi mais dafa prévoir su fekkee ni mënatoo nekk ci système bi tam ñu génne la ci. fexe ba li fi nekk ci institution di def liggéey bi war dëppoog nag ak charte finance ba pare nag aar askan wi moo tax ba lu toll ci 118 institutions ñu retiré seen agrément. génne nañ 118 mutuelles yoo xam ne daanaka dañ leen fekkoon ñu tëj am na à peu près aujourd'hui lu mat 40 mutuelles yoo xam ne dañu sooxe. ñu ngi seet nan la ñuy def ñoom ndax dinañ mën a delluwaat di dox di dox normalement wala ndax dañ leen di tëj mais su dul loolu nag léegi ñun yàlla baax na depuis un an deux ans ministère bi daal ak état bi renforcer nañ moyen direction bi renforcer nañu li nga xam ne mooy nit ñi fiy liggéey ak oto yeeg kuréel yeeg yëpp jox ñu ay moyens yoo xam ne daal tey jii mën nañoo taxaw ba nga xam ni Euh, dinañ surveiller bu baax mutuelle yi pour ñu mën a doxal normalement ak également xaalisu population yi mën a ñam ñu ñuy déposer foofu. sénégalais yu bëri nag di am soxla ci microfinance yi ñuy nguur gi aar leen di def li mu mën ngir ñu bañ a loru. wàllub xibaar ba léegi ñu dem ak yéen ci tàggat yaram match jongante amical diggante Sénégal ak Niger tey jii ci ngoon lañ koy jongante euh, bu 6h jotee di 18h jàpp nañ ne nag match bi daal waa Niger ñoom euh, qualifié nañ ci li nga xamante ni nag moo di Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2013 bi waaye nag Sénégal du ci dem waaye nag moom dina waajal tamit lépp li nga xamante ni moom moo soxal euh, waajaayam di préparation wu éliminatoire Coupe du monde bi ñëw jàpp nañu nag Sénégal bu dee nag mësut a ñàkk ci kanamu Niger match bi nag di match ngoon bi tamit dina nekk match bu jafe donte nag Sénégal ci defet la jógee ak réew Côte d'Ivoire ñu teewlu leeral yi ak suñu natango Adama Kanté donte match xaritoo la Niger Sénégal bu tey bii dina am solo pour ñaari équipe yi Niger bii mooy ñaari yoon 2012 ak 2013 muy qualifié Coupe d'Afrique des Nations mu am yaakaar defaru ngir mën a ànd ak argument yu am solo ca Afrique du Sud ñu jàpp ne tamit Niger géej na perte match ci dëkkam donte Niger mosul gagné Sénégal waaye li ñuy laaj mooy ndax gaynde yi dinañu rëccu ci jongante bi li waral laaj bi équipe bu Sénégal Barina ay jafe-jafe dale ko ci laaj bu laaj Bata dem élimination Coupe d'Afrique bu 2013 ak tamit coow li ci fédération bi gannaaw dax bu Joseph Koto di entraîneur bi ak tamit démission ay membre fédération yu ci tegu ñu ràññee ci tamit ay gaynde yu bari yoo xam duñu teewe match tey bi ndax dina motivation pour joueur yi teew foofu ca ñamee lépp dina leer ca kanam ci wàllub xibaar nag noonu la ñuy jaare dem ci xibaarub bitim réew ndaxte nag lu soxal daal waa euh, congrès wu parti communiste chinois nag ñoom amal nañu daal lépp li nga xamante ni moo di clôture congrès boobu ci teewaayub euh, kenn ci seen njiit di président bi di Hu Jintao euh, jàpp nañ ni daal congrès wu parti communiste chinois boobu nekk na congrès boo xamante ni lépp li nga xamante ni moo di bureau bi kon nag taxawal nañ ko ba ci at yi di ñëw tamit namuteefu congrès moo di nag jiital euh, kii nga xamante ni nag moo di Bo Xilai moom moo war a nekk kon nag euh, kii nga xamante ni moo di chinois bu bokk ci biir parti communiste chinois te at yi di ñëw nag ginnaaw Hu Jintao moom moo war a jiite parti bi nga xamante ni moo di euh, parti communiste chinois lépp li nga xamante ni daal moom moo soxaloon ndaje moomee nga xamante ni nag ci diirub ay fan ña ngi ko doon amal Euh, foofee ñeel nak li nga xamante ni euh, parti communiste chinois appelé li nga tamit euh, ndaxte Xi la bëgg mu di congrès bi nga congrès parti communiste chinois ci bopp li nga parti bi Chine ak États-Unis nag ñoom wujjante bi ci àddina ci koom tamit croissance ci atum 8 pour cent la waaye nag ñoom nee nañu faible na trop waaye nag moo gën nag ci croissance bi nga xamante ni àddina amal nañ ko ci euh, ci wàllub loolee nga xamante ni moo di koom la ñuy jàll ndaxte nag waa Union européenne ñoom nag dañoo dakkandil sax woote bu ñu doon woote seen budget atum 2013 ndaxte ci ndaje moo xamante ni euh, ñoom ña ngi ko amal di ci euh, càmbar lépp li nga xamante ni moo di koppor yi ñu war a liggéeyee ci at mi ñoom nag nee nañu daal sooxee nañu lu tollook juróom-ñeenti milliards maanaam dañu manqué euh, ci lii ndaxte nag fukki pays ak juróom di 15 réew ñoom ñoo bokk nag ci groupe de cohésion bi nga xamante ni nag Espagne Italie ak Portugal ñoom nag nee nañu daal lu ñu def lii nga xamante ni nag moo di coupe budgétaire yi nga xamante ni ñoom lañ leen sant ndaxte réew yooyu di Espagne Italie ak Portugal dañoo sooxee loolu ci biir koom-koom ci li nga xamante ni moo di Union européenne ba tax na nag réew yu mel ni Grande-Bretagne ñoom nee nañu du ñu yokk li nga xamante ni moo di koppar bi ñuy cotiser nekk nag li nga xamante ni moo indi daal wàllu xaar jaloo di discorde ci biir nga xamante ni moo di waa